بلاد الذي قد كان askan wi Touba bu xootal mubaarak ginnaaw nuyoo bi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci pour chef de village Saliou Dieng mi nga xam ne mooy chef de village Touba bu xootal mubaarak di ameeru quartier ak Diandana juróom ñett chef de village bi nee na sant na bu baax a baax a baax askan wi Touba bu xootal mubaarak ndax depuis 1996 ñu commencé saytu village bi muy taw muy naaj mu tàng mu sedd yitte jëpp joo xam ne village bi tax na ko moo jële ko ànd kon ñu ngi leen di delloo njukkal di leen sant bu baax a baax a baax a baax chef de village Saliou Dieng mi ngi sant également kii nga xam ne seeni moom moo waral mbaboor mi muy Serigne Cheikh Abdou baali ñu gën koy xam ci Serigne Cheikh Abdou Gaye Fane dafa am loo xam ne seen yi mébétu Serigne Saalihu la woon yàlla ñu ko suñu borom fayal dafa amoon yéene ci village bi dafa amoon yéene ci village bi nekk ci nekk ci nekk ci ba suñu borom tabaaraka taala jële ko fi yéene joojee lenn ci moom la sëriñ seen ab tey jii ñëw di mottali si village bi am na ñaari poste de santé benn bi nekk fii ci Touba Oumoul Khoura benn bi nekk ci quartier bu ñuy wax Taïba am na beneen bu fiy def bu nekk ci quartier bu ñuy wax Touba Massalikul Jinaan am nañ ak tumuranke boo xam ne si nii fu ne chef de village bi jooytu na ko waaye suñu borom mi man def na ci xelum Serigne Cheikh Abdou mu wut benn ambulance ñëw indil ñu ko fii ci poste de santé Touba ak Oumou muy loo xam ne si ni lu ñu tumuranke la lu ñu yittewoo loon ñu ko ciy sant bu baax a baax a baax ci turu ku dëkk Touba bu xatal met mi nu sante sëriñ Touba ak Cheikh Ibra Fall leen jéggalu di leen jéggal ci barke bi laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi di leen xamal ni nun bàjjanu goxu umul xuraa du umul xuraa de mboolem li fanweeri quartier yi ak juróom benn li ci Basiiru Fay boor muy bàjjan yi nga xamante ne ñoom la tànn mu dale ko fii ba muy ñaata bàjjan fanweeri bàjjan yu ànd ak seeni action nu topp nag ci ginnaaw Basiiru Fay seetu nu dara bëggu nu dara topp ci Basiiru muy daanu jóg nuy daanu ci ginnaawam ba sunu borom yàlla dimbali nu ci barkeb Seex Moustapha Mbacke soxna Aminata Lo sëtam bu baax bii baaxee nu lii mu baaxee nu ko kon dañuy sant yàlla julli ci yonante bi waaye nag nuy sant Basirou Faye di ko ñaanal di ñaan yàlla képp koo xamante ni yéene nga umul xuraa jàmm ñaanalal Basirou Faye am jàmm su ko amee umul xuraa am ko. ndax Basirou Faye xale bu yaru la yàlla moo ko jiital fi sunu kanam nu julli ci yonent bi di sant yàlla di ko ñaanal yàlla li nu ko yéene yàlla na dal sunu njaboot te li nu ko yéene lu ne mu ngi koy xëy di ca gont suba bëccëg guddi ngoon nuy ñaan na ci barkeb sëriñ tubaa ak Cheikh sëriñ Seex Abdou Lahad Gaynde Fatma li nga yóotu ci sa yoonu maam yi yal na nga ngëb lu ko ndax nun danoo naanum ndox daaw di naan rek ndox mosunoo jafe gaa ndax sëriñ saaliwu bañ ne salaamaaleykum la ni forage baa ngoog waaye nag la ko xëccaat ba indi ko ci sunuy buntu kër mbàkke génnoo ci kon tey soo nu indilee ambulance bii mbàkke nu julli ci yonante bi di sant sa maam waaye di la sant di sant sëriñ seex mbàkke sa baay di sant seex moustapha sa maam di la ñaanal yàlla ci barke yonante bi ak sëriñ tuba ak képp ko àndal ba ngeen ñëw fii ci bokkutal mu mag baaraka ci quartier bii ñuy wax umul xuraa ak li mu boot noo ngi lay ñaanal yàlla ci daraje laa ilaha illallah loo yóotu yàlla na nga ko téye te li nga xamante ni moom lan lay wutle takku nanu ci dëgër nanu ci te duñu ci dellu gannaaw ak ku nu yaakaar ak ku yaakaar nu yaakaar la nun yaakaar nan la ginnaaw biñ ci yonent bi ko ci xalif di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal mbooleem njabootu sëñ Touba mbooleem taalibe di yëkkati nuyoo jëmale ko ci ñi nga xam ne ñenn lañ ci njabootu sëñ Touba ñëw ànd ak seen Cheikh Abdou ànd ak moom ci liggéey bi ñuy yëkkati nuyoo bi di ko teg ci loxoom ndax bëgguñu lim di juum di fàtte kenn ci délégation bu takku bii nga àndal bu am solo bi ndax tey gis nañ fi nemmeeku nañ fi ci këri sëñ Tuubaa ci njaboot yooyu gis nañ fi ne ñoom ñëpp ànd nañ ak yow ñëw fekk si jotaay bi ñu yëkkati nuyoo di nuyu député Sadaga muy Abdou Lahad di nuyu aussi chef de village wu bu xatul Moubarak muy Serigne Saliou Dieng di nuyu kilifa yi nga xam ne dañ leen fi fekk te ñu bàyyeekoo ci gox bi di leen nuyu di leen sargal di nuyu bàjjanu gox yi ak relais yi ak itam chef de quartier yi sëriñ daara yi di nuyu aussi le représentant des ICP nga xam ne moom moo jiite képp kuy ICP fii ci Touba ak le représentant des la des sages-femmes di nuyu aussi kilifa yi nga xam ne dañ leen fi fekk di nuyu population yi nga xam ne ñoom ñoo waral bés bi ndax lii ñu joxe ñoom lañ ko jeglee ñu yëkkati kàddu sant ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp sant bi nag ñu ciy jiital seen Cheikh Abdou ci lii nga xam ne yëkkati na ko teg ko suñ loxo ngir ñu jox ko poste de santé umul xuraa muy ambulance boo xam ne bu mucc ayib la ambulance bu dëppoo ak jamono ambulance boo xam ne njëriñ li mu am xëy na moom mi ko joxe sax xamul lépp ndax ñun ñi ciy liggéey nga xam ne ñu ngi nekk fële ci hôpital sëñ Mbàkke Madina tey saytu post de santé yi nekk Touba yëpp te ñu toll ci limu ñaar fukki post ak juróom nga xam ñaar fukki post ak juróom yooyu ñi ci am ambulance matuñu fukk nga xam ne poste yooyu képp ku ci yittewoo ambulance ak waxtu wu mën doon da ngay woote fële ci centre de santé ba muy hôpital sëñ Mbàkke Madina ñu yebal ambulance bu ñëw jël si malade bi ak foo mën a nekk fii ba Bellel fii ba Bogo fii ba Tindoodi fii ba Madiana fii ba Xelkom fii ba Ndoka fii ba Sura Daaru Marnaan Mbusoobe Umul Sam fépp foo xam ne rek malade dem na fa nekk ci post de santé bi teñ war ko jàllale suñu wootee ambulance bi fële ci hôpital Sëñ Mbàkke Madina lay bàyyi ko ñëw jël la kon ngeen gis ne loolu su fekkee ne ambulance yi doyul dina am ñoo xam ne foog ñu nekk ambulance bi yóbbu kenn ba ñëw soog la kon ki nga xam ne dafa yëkkati ambulance jagale ko poste de santé teggil na population yi coono boo xam ne ñun ñi ci nekk ñoo ko xam ndax ci jamonoy nawet nga xam évacuation yi daf daan bari trop léeg-léeg ñu woote taseeg ambulance bi dem fu mel ni Bogo wala mu dem fu mel ni Bélel nga xam non seulement day dem jëli ji malade bi foofu mais su ko jëlee da koy yóbbuwaat ci benn hôpital pour référer ko fa nga xam keneen ku wootee da ngay xaar ba ambulance yooyu wàññeeku soog a jublu ci yow kon tey ñu amee poste bu mel nii nga xam ne fi mu nekk dafa sori béréb yi ñuy évacuer béréb yi nga xam ne mooy structure de référence yi lu demee ni hôpitaux yi muy ndaamaatu muy hôpital Matlaboul Fawzeyni nga xam li ëpp ci évacuation yi ci structure yooyu lañ koy def kon suñu fexee ba fii am ambulance loolu ñun ñi ci nekk xam nañ njëriñ li bu baax tey xam nañ coono yi nga xam ne teggil na ko dindi te ambulance yi bëri na loo xam ne guddi gi dina ñëw lu man ñetti yoon ci poste bi di nga gis ambulance boo xam ne daf fiy jógee di dem àggagul ñu woote waat ne am na ku ko yittewoo kon lii ñu ngi koy rafetlu bu baax di la ci sant tey wax ne du guléet ndax maye na mbusoobe ambulance loolu ay weer rek lañ ay quelques mois lañ ci def te mbusoobe itam poste bu mel nii la ndax dafa sori béréb yi nga xam ne ci la ñuy référé nga xam bi mu leen mayee ambulance ak léegi loolu impacté na taux de mortalité bi ndax tey soo mayee ambulance ambulance bi dina tax ne ku doon yéex a dem ndax di nekk ambulance ba di ci loru loolu daf ko fay jëlee loolu day toxu ci post yooyu ba tax gis nañ ne post yi nga xam ne dañu am ambulance poste yooyu lu ci bari ñi nga xam ne dañ leen di référé dinañ leen référé à temps référé leen ci condition yoo xam ne suñu àggee dinañ leen mën a jël en jël en charge bi bu normal donc ñun li ñu xam ci geste bi porté wu geste bi suñu taxawoon fii di ko wax duñ fi jógee waaye nag li ñu ko gën a rafetlu mooy fii ku nekk xam na ne nekk na foo xam ne sori na béréb yi ñuy évacuer te nawet léegi léeg am fi oto dafay jafe ba nga xam ne ambulance bi njëriñ li mu am daanaka maanaam suñu ñun dafa sedd suñu xol ci kaw ne dañ daan tëdd ba guddi deux heures du matin ñu yeeñu ne ñu kat am na malaat bu nekk bokkatul mag barak wala umul xuraa ñu war ko jàllale mais ambulance yëpp dañu génn nga xam dañ daan mujj sax woote di abbu ambulance ci beneen structure. face caméra di abbu ambulance ci beneen structure pour mu ñëw fexe ba dimbali ñu jàppale ñu jël malade bi yóbbu ko kon ñu ngi rafet lu bu baax sëñ Cheikh Abdou geste bii nga def te nga xam ne du guléet di la ñaan aussi nga bàyyi xel poste bi ñuy wax poste umul xuraa postu sàmm poste sàmm aussi daanaka moog bii ñoo tolloo. maanaam li soxla daanaka moom itam ñoom loolu lañ soxla xam naa ku leen bàyyi xel jàpp jàppale leen ci lu demee nii dina tegg lu bëri fii ak Madiana poste yi ko soxla tuubaa sax bari na poste yi ko soxla Touba bëri na ñu ngi ñaan suñ borom dooleel la kattanal la ba lu demee nii nga mën ko def fépp ci Touba te nit ñi jote ci may daanee la sama kàddu ci di ñaax ñi may ñaax nag mooy ñaax suñu bopp ci taxawaay yi ñu war a am ngir saytu ambulance bi. jëriñ di jëriñ askan wi loolu nag pour mu nekk il faut ñu taxaw ci maintenance bi ak entretin bi loolu nag maa ngi ciy ñaax comité de santé bi ak infirmier chef de post bi pour ñu taxaw ci maintenance bi ak entretien bi bañ a sooxaale panne su vidange jotee ñu vidange ko te jël ambulance bi nag gaare ko mu bañ di doxi yeneen soxla lu dul yóbbu malade ambulance bi saa su jógee. na nekk ne malaat lay yóbbu wala moom lay jëli ñu bañ def ci loo xam ne du dëppoo ak njëriñ li nga xam ne moom lañ ci séntu wàllu entretien bi tamit ñun dinañ leen ci jàppale lépp loo xam ne mën nañ ko ci taxawu leen ngir ambulance bi continuer di jëriñ nit ñi dinañ ci ànd ak yéen ba ñu ko jox bés bu ñu dajeeg moom duñu ñu rus te duñu ñu sëgg kon sëñ bi ñu ngi lay wax jërëjëf di ñaan population yi aussi population yi aussi ñuy teel a jóg. di ñëw ci structure de santé yi bañ a xaar ba mu jàmp ñu soog a ñëw te jigéen ñi ñuy ñaan képp koo xam ne dafa wann lor muy teel a jóg ndax gis nañ ne kat jigéen ñi ñu ci bëri seen wisit bu njëkk dañ koy yéex a def dañuy toog ba génn seen ñetti weer soog a ñëw tàmbali seen wisit te wisit moom ku nekk xam na ne ñetti weer yu nekk soo xasee wann lor ñetti weer yu nekk war nga jóg ñëw def sa visite te liy indi ñuy évacuer nit ñi li ci ëpp mooy ñàkk a def sa visite ak ñàkk a matal sa visite ak itam yéex a jóg pour dem ñu saytu la sooy mucc dangay gis ku toog këram toog këram toog këram ba ba mucc bi dem bay jéggi dayoo mu soog a jóg ñëw hôpital su ñëwee loo gaaw gaaw moom mu yëg ne da ngay yéex kon ñu ngi soññaat jigéen ñi ñu teel a jóg tàmbali seeni visite tey matal visite yi. te di tëdd ci sànke yi ñu nàndal di ci tëral seen doom di ci tëral njaboot gi yëpp te yóbbu xale yi ñu ñekk leen te ñekk yi gratuitement la amul lenn lu luñ ciy fay te képp ku yaramam tàng aussi ngay teel di jóg ndax yaram wu tàng li ci ëpp siburu moo koy joxe te siburu diagnostic bi kenn du ko fay maanaam suñ lay seetal sa yaram ndax siburu la doo fay garab yi doo ko fay loolu état wu Sénégal ñoo ko gàddu xale yi am yi amagul juróomi at tamit du ñu fay daanaka seet bi kon li mu xale yooyu kenn waratu ci faatu su fekkee seeni waajur teel nañu jóg di leen indi ci biir hôpitaux yi ñu ngi fàttali tam mag ñi ñuy teel a jóg ndax état bi def na ay politique de gratuité yoo xam ne mag mu am 60 doo fay kon mag ñi ñuy teel di jóg di ñëw ci hôpitaux yi ñu leen di saytul seen yaram bëri na ci ay mag ñu amee tension dañuy bàyyi ba tension bi daaneel leen ñu soog a ñëw loolu moo tax AVC bëri loolu moo tax insuffisance rénale bëri loolu moo tax yenn gàllankoor yi bëri ci biir mag yi te état bi def na lépp ba nga xam ne képp koo xam ne rek sa yaram dafa sutante te nga am carte d'identité say at weesu juróom-benn fukk wala toll ci soo ñëwee dinañ saytu sa yaram te doo ci fay dara su jaree tam nga dem ci hôpitaux yi dinañ la toppatoo te doo ci fay dara may daaneel sama kàddu di ñaan nit ñi ñu bindu ci mutuelle de santé yi fexe leen dugg ci mutuelle de santé yi ndax état bi fexe na ba képp koo xam ne bindu nga ci mutuelle soo doon fay soo waroon a fay sept mille cinq cent maanaam junni ak juróom juróomi téeméer. état bi mooy fay juróom-ñaar téeméer yi nga fay yenn juróom-ñaar téeméer yi saa soo feebaree ci at mi dootoo fay dara mbaa sooy fay ticket fu ticket bi di jëre téeméer doo fa fay sax ñaar fu kon ñu ngi ñaan nit ñi nañu fexe bindu ci mutuel de sante yi pour paj mi yomb leen te mutuelle ku ci bind di nga mën a jot ci garab yi jot ci paj mi te sa yaram dina nekk fu mu toll di nga mën a wéy ak wér gu yaram kon ñu ngi sant bu baax di sant délégation bi fi ñëw di santaat bi di feddali suñu cant ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ku tedd gi di jiital ziar gi ak nuyoo bi Serigne Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma ziar gi ak nuyoo bi yëpp ñu ngi koy yeew ci moom di ziar tamit képp koo xamante ni teew na fi te dëkk ci gox bi ñu ngi lay nuyu di la kàddu gi nag day kàddu ndigal jóge ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nga xam ne mooy président mouvement international Bamba fépp Bamba partout sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen masawu coono bala may yeggale dañuy remercier Cheikh Abdou ci jëfam ndax dëkk bi dëkkub maamam la su ko neexoon mu ne day toog di laaj addiya waaye defu ko dafa jóg fas yéenee bay waaram ci dëkk bi ci kemtalaay kàttanam ci ay pexem te lii mu def xam na ni yéene ji ëpp na loolu kon ñu lay ñaanal Mbàkke seen yéene nu mu toll kàttan ji ëpp ko di leen jottali kàddu Cheikh Ahmadou Kara ci yéene bi nga xamante ni bi am na ko ci yéen ci yéene boo xamante ne bi am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem te lépp mu doon loo xamante ni bi liggéey sëriñ Touba rek tàmbali woon na ko nag ci bi ñuy taxawal forage yi ndox mu neex mi ci jamono Serigne Saliou dëgg na du bëgg sax ku ko wax waaye yëkkati woon na ñaar fukki million ak juróom-ñett boole ko 4-4 ngir boole ko ci ndox mi nga xamante ni bi moom la ñu fas yéene indi ci dëkk bi muy ndox mu neex te mu doon yéene bu ndaw boo xamante ni bi li mu yéene optement international Bamba fépp Bamba part Bamba merci ñu doon coordonnateur bi mu am ci mbébét bu yaatu a yaatu di leen wax na nag mouvement international Bamba fépp bokkut ak parti politique te ñu ngi ciy woo ñëpp ku ne mën na cee bokk moo xam ku bokk ci parti moo xam ku bokk ci daayira ndax li ñu li ñu yitteel mooy fexe ba yërmandey Serigne Touba daj àdduna bi yëpp rawate na ne tàmbalee ko ci dëkkam bii ci li nga xamante ni bi dañu fee war a jëf ndax ku ne xam ne ni dëkk bi li fi war a am ci wàllu zaahir bari na waaye du car kenn ku ci nekk di toog di xaar mbirum état ak yu mel noonu kenn ku ci nekk bu amee doole rek war ngaa indi sa doole boole ko mu doon benn ndax liy jëmale réew am kanam rawatina ab dëkk Touba am na ko ba doyal ko mooy lan mooy mbooloo mooy alal mooy ay nit ñu am xel kon lan moo ci des mooy borom alal yi nañu booloo boroom xel yi nañu booloo mbooloo yi nañu booloo buñ ko defee dëkk bi li mu laaj lépp danañ ko def ba def ci lu kawe suñu njort ba jafe-jafe yëpp loolu day daal di dakk kon Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci mouvement international Bamba fépp woo na woo na euh, Sëriñ Sëriñ Mbacké Daba Sarr ci Daaru Marnaan ngir ñu defal leen fa benn dispensaire boo xamante ni bii foofu lay tàmbali waaye dina agsi ba fii ngir xool lépp loo xamante ni bii buñ ko doolee ci liggéey bi dina gën a yaatu ba mu daj dëkk bi ñu def ko ci turu mouvement international Bamba fépp Bamba partout Bamba merci. kon fas yéene nañ ci fas yéene nañ ci liggéey Serigne Touba gis ngeen mbënn bi fi amoon ci dëkk bi. wax dëgg yàlla bi muy rëy rëy rëy déggu leen ci kenn ku dul njabootu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu def ci liggéey boo xamante ni bi lu tolloog ay junni junni kër ba ñu mën a dellu seen i kër ci pas-pas rek lañ ko defee ak bëgg Serigne Touba te séentuwuñu ci lu dul fayuk Serigne bi te bañ ko defee dañ koo defaaleel président de la république ak ñi mu àndal yëpp kon Sadak yow ñu ngi lay nuyu ndax liggéey bañ ko njëkkee tàmbali ci 2016 boobu gisoon nañ la ñu ànd ci waaye liggéey bu mujj bi da ngaa xawoon a xat. ba jotuñu laa gis waaye liggéey bu mujj bi moo ëppoon bu daaw jéeg kon nañu taxaw ci dëkk bi ba taataa yi fi am mu dakk rawatina li wër jumaa ji rawatina ndaamaatoo daaru xuddo sa feneen a feneen du yoon Touba màggal bu jotee nit ñi di am jafe-jafe ci seen kër ci ay ndoxo gi mel noonu kon loolu nañ ci teel a jóg kon ñu ñëpp nañu bokk ndey bokk baay fas yéenee liggéey Serigne Touba te bàyyi intérêt personnel bi ñun ñëpp ñu jëfandikoo suñuy xel xool li nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu bokk muy intérêt général bi ñu taxaw ci fas yéene ci liggéey sëriñ bi kon sëriñ bi waxtu wi dafa xat kon mënuñu ci yaatal lu ëpp lii ñu wax kon ñu ngi lay sant ci turu Cheikh Ahmadou Kara bi tamit ñu ngi leen di ziara di leen nuyu di leen masawu coono di ñaan ku tedd ki taxaw leen incha allah mouvement international Bamba Fépp dina fi ñëw ak ay projet yu mucc ci ayib ñu ànd ko yéen waaye di leen wax ne képp ku bokk ci parti bu mën a doon mën nga cee bokk ndax mouvement international national Bamba fépp de parti politique kon ñu ngi lay sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokki Boukhatoul Moubarak ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne surtout ak sant di leen jégalu di leen balwa te di leen masawu tool dégg nañ li ngeen wax ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy docteur Dieng ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci wàllu këru docteur ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu chef de village yi ak délégué de quartier yi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu sëriñ Cheikh Abdou ak mboolem kilifa yu mu àndal kenn ku ne ci turam ak santam mënuñoo ñàkk bañ a tudd sëriñ Ousmane mi nga xam ne day sama xarit li ko waxee ñu àndoon ci inondation yi muy liggéey bu am solo muy jàmbaar boo xam ne taxawaay bu rafet la doon taxaw. responsable parti APR yi nekk ci département Mbacké yëpp ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay sant di la gërëm ndax nee nañu bii mooy ñaari yoon ñu gunge la ngay yóbbu ambulance ci ay gox mu doon jëf ju am solo joo xam ne yëg nañ ko te rëy na trop ci waa dëkk bi mu mel ne lii mu def. maa ngi fàttaliku 2000 2003 benn ambulance boo xam mooy oto bi ma njëkk am ma jox ko Serigne Saliou addiye ñu yóbbu ko ci la bu Matlaboul Fawzeyni ambulance daf ma waxoon ne ma lii de mooy li seen maam yi doon def tey képp koo xam ne yaa nga ca na xam ne yaa ngi ci yoon te dootoo ci jógee na nga xam ne doo tàggoo oto sant naa sa maam bu baax baax kon nag loolu laa gisaat tey muy jëf ju rëy joo xam ne say waajur sa waajur Serigne Cheikh Gaynde Fatma wala fi nee nañ ku gaynde doon sa bàyyi boo mun te doon gaynde na nga xonqal say bët ba ku la gis xaw la ragal waaye nag loolu mooy képp la sëriñ Abdou Lahad waxoon ne képp ku la dàq joxe saa yu ngeen xeex moo la man loolu wax ju leer la joo xam ne yaa ngi koy taxawu di ko def kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne jëf ju rafet la te it nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition benn Bokk Yaakaar nekk fii ci Touba ñun ñëpp lii mooy sunu waru te war nañ ko xool ñu ñëpp ñu ànd doon nekk benn fu nit jëm ñu ànd faak moom kon Serigne Cheikh Abdou fas nañ yéene foo jëm ñu àndi ko ak yow ba mu jeex tàkk incha allah bu soob yàlla. ñuy wax ne dégg nañ léegi ñuy wax ci affaire u tëli Basirou Diagne chargé de mission wax na ko am na ay tëli yoo xam ne programme nañ ko fii ñu tudde ko euh, promobile boo xam ne waa Assirou ñu ngi koy def. waa PIDC it am nañ programme bu ñu war def pour Touba mais nag dañuy profité ñu wax ñun en tant que citoyen parce que nag nañ waxante dëgg euh, war jot na Touba li nga xam ne mooy quartier yi nga xam ne dañoo sori Touba ñu gën leen a jàppale ci ay tëli tëli yi dañ ko war a gën a yaatal mais nag ñi nga xam ne ñoo koy séddale nañu xam ne lu mel ne mu Moubar lu mel na Saam lu mel ne Tindodi lu mel ne Bagdad Gédé yooyu ci Touba la ñu bokk lu mel ne Saam ci Touba la ñu bokk kon nañ leen bàyyi xel fu mel ne Daaru Marnaan ak feneen jot na ak teenu maam Cheikh jot na ñoom it ñu gën a xool tëli yi gën koo yaatal parce que nag ñu baal ma gis nañ fi ay tëli yoo xam ne ñu ko doxalee gënul ndax tëli boo xam ne da ngay toog ba jant soo benn nit dafay jaar benn oto ñaar ñett loolu jaaduwul man sama responsabilité laay wax man ab laaj maa wax nañu jël tëli ñu yóbbu ko ci quartier yi nga xam ne parce que da ngeen xam ne ab poste de santé nekk ci ab quartier ay nit ñu fay indi ay ambulance ku ne xam na ne ab oto nga dugg ca dara jotu la Touba biir Touba di dara jotu la méttiwaay ba ku ne xam nga ko ci sa bopp bu ñu jëlee nag ab oto boo xam ne ambulance la gaa bu am na mais nag muy daan ngu ba ngay egsi ci malaat loolu gënul ku metti la kon nag ñi ngi ñaan président de la république mu gën a wax xoolaat tëli yi nga xam ne ñi ngi koy dugal biir Touba ñi gën koo yaatal gën koo yóbbu ci quartier yu mel nii ñi ngi sant président de la parce que taxawaayam rafet na ci Touba def na fi lu benn président de la république mus ko def mais nag yaatal gi des na te loolu du ci moom ñim doon nañu dimbale al mubaarak ay problème mi ngi ñëw te yàggatu te nañ ko teel a wax léegi ndax autoroute Ila Touba bi egsi na wàcc na kon nag fii dañuy daal di wax ne ci xolu dëkk bi lay daal di doon mais bu bokkee ci xolu dëkk bi mu am ay manquement ay télé yeneen day métti ci ñun nañu waxante dëgg parce que fii ñun fi lañ bokk man indi naa fi ndox bu bari gi yëg nañ ne am ngeen problème mu ndox. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. kaddu yi du mën a gudd ndax timis dafa jot te loolu moo gën a nekk farata dañuy sant rek ci njalbeen di sant mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo ñu gunge mu di responsable doon na bokk yaakaar ak surtout APR yi fi nekk yëpp di am mbégte mu rëy ci booloo gi nga xam ne booloo nañ ko ak nekk benn gi nga xam ne nekk nañ ko benn di leen yóbbante ay cant seen kilifa kii di président Moustapha Cissé Lo waa këram ñu ngi nii ak waa kër excellence Pathé Diakhaté sëñ Abdou Lahad Seck mi ngi nii sëñ Alla Sylla kenn desul kon ñu ngi leen sant di leen gërëm rawatina aussi jigéen ñi di sant itam ñi nga xamante ne bii ñoom lañ fekk si nii te ñu ba ñu mën leen liggéey lii mu di docteur Dieng ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo fi dëkk rawatina kii di chef de village bi di sëñ Saliou Dieng ak mbooleem délégué de quartier yi nga xam ne ñoo koy jàppale ak mbooleem waa Boxatul Mubarak gépp ndax léegi dañu di ma sant may leen man maa leen war a sant ndax yéen yéen a ma may ba ma mën a liggéeyal askan wi jaarale ko ci yéen kon cant gi man maa leen ko ameel te lii du dara ab tàmbali rek la docteur Dieng mi ngi ko wax léegi am na beneen ambulance boo xam ne mi ngi ñëw incha allah bu ñëwee nañ ko teg ci loxoom moom itam ñu defaat nu mel nii ndax li nga xam ne moom la ñu fas yéene moo di liggéey ci askan wi jàppale askan wi. dimbale askan wi li ñu am lépp ci lañ ko fas yéene def loolu mooy engagement nga xam ne jëloon nañ ko te tey jii moom lañuy ñuy firndeelaat te bu ci yàlla àndee buñ àggee ca koor ga daleen toogaat defaat beneen cérémonie bu mel nii bu koor ga jàll dañ koy noonu lañ koy jàppoo ba faw rek fas yéene lépp lu ñu am jox ko jox ko dëkk bi. lii nag dañ koy def ngir jàppale ko kii nga xamante ni moo fi nekk mu Touba Mouride Cheikh Mawone Mountakha ndax dëkk bi dëkkub Serigne Touba la kon lépp lu fay def rek addiya la njabootu Serigne Touba nga ko defal te gannaaw nag dañ cee bokk kon lii day suñu warteef moo tax bëgguñ kuñ ciy gërëm moo tax bëgguñ kuñ ci sant moo tax bi nga xamee ne jël nañ ambulance bi dañoo dem ba ci sëñ Sidi Abdou Lahad mi nga xam ne dëkk bi ci loxoom lañ ko teg ñu wan ko ko teg ko ci loxoom wol ma ko mu ñëw ñu wan ko ko teg ko ci wan ko ko mu génn xool ko daal ne jëf ji day nangu nañ ko ñu soog koo jël indi ko fii kon lépp lu ñu def rek ci ndigal lañ koy teg foofii lañ koy jaarale ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li mooy li war a am di sant nag sama mbokki bopp yi ñoom ñëpp dikk nañ ànd ak man sëñ Abo mi ngi nii toog sëñ Modou sëñ Laat ñoom Mohamed Sylla mënuma teewlu ma ñëpp nii ci euh, ci ci jataay bi sëriñ sëriñ Jiili ak sëñ Ousmane loolu aussi dinaa ci taxaw ndax sëñ Modou Kara dafay sunu dafay sunu wayjur ci ñaari wet yëpp te li nga xamante ne moom la ñuy def tey jii mu jël ab poste de santé ne dama koy ne dama koy def addi Serigne Touba ñu def ko Daaru Marnaan te foog naa ne képp koo xam ne yaa ngi jox Cheikh Mouhamadou Bamba teg ko ci loxo maam Thierno jàpp naa ne jooju addi àgg na kon sëñ Modou Kara loolu mooy taxawaayam li Serigne Ousmane wax léegi aussi leeral na ko loolu ci cadre Bamba fépp la ko def def ko sax ci cadre politique. ndax moom Serigne Touba lay liggéeyal te loolu mooy li mu jiital moo tax te nee ma day post santé boobu bu noppee am na yeneen post santé yoo xam ne danaa ko ci teg ndax Touba fas naa ci yéene def sama loxo ndax mbooloo mi ma Serigne ak mboolem taalibe yi nga xam ne nangu nañu ànd ak man dinaa ànd ak ñoom ñu ànd def ci Touba suñu loxo ba bépp programme wax ne war nañ ko faa def ñu def ko fa te defal ko fa suñu bopp kon sëñ Modou kenn amul fayam bis bi itam jàpp na ci bu baax a baax sëñ Ousmane mii tey li xëy Ndakaaru sécurité bi yëpp moom moo ñu ko indil kon sëñ bi maa ngi la yóbbante ak cant ak ay ziar ak nuyoo yu gën a kawe ci sunu way ji roowee di Cheikh Amadou Kara ne ko rek lañ ko waxoon dem ak barki dem rek lañ koy wax ndax lii ñun mooy li mooy li ñu ñor mooy fas yéene képp koo xam ne gis nañ nga soobu liggéeyal Serigne Touba rawatina nga ko jaarale ci askan wi di dimbali askan wi kooku ñun dañuy laxasaayu topp ci sa ginnaaw la ngay def lépp nga ànd ko yow. te benn engagement bi jël moo di képp koo xam ne sama nit nga. képp koo xam ne xam naa la danaa la fexe ba ma mat la indi la lépp loo mën def nga def ko ci Touba def ko ci askan wi def ko ci nit ñi ndax nit ñi dañoo bàyyi dañoo gàddaay li ñu am lépp ñu bàyyi ko ñëw jàpp Serigne Touba kon nag foog naa ne bu ñu dikkee war na leen a yaatal tatagal leen ba fexe ba yaakaar nga xam ne moom la am ci dëkk bi yaakaar jooju bañ a tas te Serigne Touba ci boppam moo ñu wax ne ci man fawsee ni ñaan ne lépp loo xamante ne bii ngëneel la lépp lu am njariñ la ak fu mu mën a bàyyi ko ci penku ci saw ci gannaar ci salum ci kaw ci suuf ñaan suñu borom ne ko lët boo matal ma ko indil ko Touba loole nag ay jinne duñ ko fi def ay malaaka duñ ko fi def ñun taalibe Serigne Touba ñoo a def kon nañu laxa saayu te def loolu di terminer nag di fadilu si engagement mi nga xam ne am naa ko ci côté président de la République moo tax ma ndag ñii قديما في Thank you.